di tàmbalee si nuyo bi suñu sëriñ suñu kilifa muy Cheikh Bassirou Mbacke ibnu sëriñ Abdou Khadir Mbacke di ñaan suñ boroom yàggal ko fi lool te wéral ko te kàttanal ko ba naal yi mu naal suñ borom yeggaleel ko ko ci barke borom Touba ñuy sant bu baax rek ci jotaay bi ak fekke gi ñu ko suñ borom fekk lowaat bii nga xam ne moom mooy juróom-ñaareelu at mi di juróomeelu édition fu weeru koor jotee waa sant de recherche et d'essai bu soxna Roqee Bousso fii ci Guédé daa di ndongo yi fi jaar am pas-pasu ñëw siyaare sëriñ bi feeñal ko seen mbégte ak seen cofeel ak seen sant ci liggéey bu am solo bi mu fi def te mu nekk njëriñ loo xam ne ñun ñi ciy jëriñu rek ñun ñoo ko xam te muy loo xam ne nii njëriñ loo xam ne da nga koy làmb di ko daj ndax dafa nekk formation lu ñuy tuddee formation pratique ndax formation day ñaar day lu ñuy tuddee théorie ak pratique muy formation boo xam ne ñi koy def ci école yi nga xam ne ñooy école yu mag yi kenn wul ne dañ ciy fay xaalis bu bëree bëree bëree bëree bëri def ko tamit ay ay at door cee génnee diplôme kon soo ñëwee léeg-léeg sax am na si ñoo xam ne du ñu am certificat ñenn ñu sax xaj na du ñu du jàng waaye ñu di leen fi defal ay formation bu yoo xam ne su paree dinañ leen defal attestation buy wane ne def nañ formation te formation bi li ci ëpp solo dafay ànd ak mën a maanaam da ngay opérationnel mooy soo génnee di nga mën a def dara kon loolu mbooloo mi di ci sant Cheikh Bassirou Mbacke ibn Sëñ Abdou Khader ci jéego ak sacrifice yi mu ci des di sant it wax dëgg euh, coordonnateur CREI bi muy Toumani Doumbouya muy ñoo xam ne it lépp loo xam ni centre bi soxla na ko suñ ko suñ di ko jaaree rek ne leen sëriñ bi nee na wax dëgg ñu defee ko niñ ko bëggee waaye di si sant sëriñ Fallou Bousso mi nga xam ne moom la sëriñ bi doxale suñ digganteeg moom mu ci dox doxin woo xam ne wax deug centre bi amuñ benn jafe-jafe kon loolu it ngi ñaan yalla na yalla yàlla yàggal suñ kanam ñu yag and ak mom ci liggéey Cheikh basirou Mbacke ni seigne Abdou khadim waye di centre tamit monsieur Diatta nga xamné mom bi centre bi ubbe ba légui ak équipe bi mu and ak seigne Ousmane Bousso ak euh, Mursala Lo ñom ñep ñi ngi ci liggéey liggéey bu am solo ak ñom seigne Omar Khoule bi yëpp kenn ku ci ne fa nga mëne yaang taxaw ba centre bi depuis 2014 ba euh formé na plus de 7081 usagers moy juróom-ñaari junni ak juróom-ñett fuk ak ben ci ño xamné ci centre bi lañ jaar ñi ñu formé len ci euh bureautique moy li ñuy tuddee saisie tàmbalee ko ci Word Excel Publisher PowerPoint ñi ñu di len formé ci infographie Moy lepp lu jëm ci walu montage ak li ñuy design ñii ñu former leen ci maintenance mooy defar ordinateur waaye am ci ñoo xam ne former nañ ci réseau am ñoo xam ne sax former nañ leen ci comptabilité am ci soxna yoo xam ne former nañ ci transformation agro alimentaire mooy fexe bay defar ay jui wala ay sap saabu wala yi ci aju loolu lépp nag bañ ko tàmbalee 2014 ba léegi am na ci ñoo xam ne wax dëgg fa yàlla am actuellement commencé nañoo entreprendre maanaam commencé nañ di liggéey di di demal seen bopp kon centre bi am na njëriñ loolu nag mbooloo mi di def chaque weer bu jotee donte amuñ kàttan li donte mënuñ ko ñoom it ñu dajale seen i juróom ak seeni fukk daal di ciy jënd suukar daal di ñëw jébbal ko sëriñ bi ngir fësalee ko rek seen mbégte ak kontaante ak ñaanal ko comme sëriñ bi loolu daal la waa centre bi daje woon xam naa li ñu indi nii sax ñoom ñu ngi koy xeeb lool lool lool waaye ñu bëgg tamit seen jaatam yi nga ñaanal ko bu baax wax dëgg ku ku engagé wu la centre bi mi ngi fiy liggéey lu am solo ci dëkk bi waaw te xale yi ñu ngi ñu ngi yeewu ci wàllu informatique ndax xam-xam bu bees la xam naa ñu ngi guddal te xat na te sëriñ bi bëri na lu koy xaar te wax dëgg fa yàlla am liñ bëgg wax lépp xaju ci kon ñu ngi ñaanal sëriñ bi daal mu yàgg fi lool te suñu borom kàttanal ko comme lii daal mooy liñ fi indi nga ñu ngi gis ne nag at yi tamit mi ngi wàññeeku ndax machine yeeg yooyu dafa commencé di panne di wàññeeku loolu tamit ñu wax naan dinañ ci waxtaan ak sëriñ bi Ah, sàkku ñu gën ñoo jàppale ci ministre bi ñu dolli ko waaye loolu moom xam naa bu ñu si waxtaanee sëñ Alaaji Buso li ci des dinañ ko yeggale loolu tamit bokkoon na ci li ñu waxoon li ci des nag sëriñ bi moom wax dëgg lépp lum ci yëg rek dana faju asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu jërë ci weeru tedd wi di weeru koor nee na di leen sant bu baax itam di leen gërëm te di leen soññ ci lii nga xam ne moo leen fi dajale muy sàkku xam-xam ngir li ngeen mën a liggéeyee nee na muy ponk bu am solo ci dundu doomu aadama rawatina ku gëm yàlla di ab jullit di taalibeb Serigne Touba ngir xam ne liggéey dafa bokk ci li xam ne keno yi nga xam ne. mooy tax nit mën a sàmm ngoram. mooy tax nit mooy tax mu mën a sàmm diineem. te ngor moo jiitu diine. nee na ku ko sàmmul sa diine du mën a rafet. nee na comme ci biir xalaat yooyu rek. Eh, ngeen xam ne képp ku bokk ci Serigne Touba ku ne. am na lu la war sa digg ak nit ñi. mooy di leen yittewoo ak di leen toppatoo ak fépp foo leen mën a féete nga def ko kon loolu nee na loolu moo ko indi nee na comme nag yéen ñi fi jaar yëpp nee na ñi nga xam ne ñu ngi toll ci wut liggéey nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax ku fi jóge rek mu doon sa ubbeeku ba mën a liggéey liggéey bu yaatu bo xamne ne la nga yene ci sa aduna ak sa ëlëk dang ko mëna def nee mi ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal nee di rafet it jéego yi ndax fi ñu tollu ndax fi ngeen tollu ci xam-xam ak liggéey dara waru leen ci kenn kon yene rek la waaye nee na addiyee du tuti ndax xol bi rek ak yene ji lal moo ëpp solo te suñ boroom balaa fay jëf day fay yéene ba noppi comme jéego yi ngeen def ba ñëw fii rek ngir jëmmi sëriñ Tuuba nee na suñ borom dana leen ko fay jëf jiit num nu mu mën a demee it xam leen ne yéene ji ko moom la suñ borom di njëkk a fay comme ñi ngi ñaan ci barke sëriñ Tuuba mu nangul leen ko nee na yéen ñu ciy liggéey yëpp itam ak kilifa yi di taxaw ci formation yi nee na ñoom it yàlla na suñu borom fay leen ci barkeb Serigne Touba jërë ngeen jëf comme ñu tàll rek ku ne fas yéene ñaan li mu ñu ñaan si waaw mooy président amical bi maanaam ñoom biñ noppee dañoo def benn amical ñu nekk président mu nekk président bi. mooy ñi fi jaar ñi fi jaar ñi fi jaar ñëpp. waaw moo ko jiital naa ñenn ñi dañoo nekk génn. ñaan rek. نفى إبليس في بحر ما ينبغي dal ak jàmm ci Dieng Saala TV ñu leen di ñaan bu leen fàtte abonné te ngeen laal ko la ci notification bi loolu mooy tax vidéo bu rek ngeen mën ko am jaa ngeen jëf.